waxtaan incha allah bu sooba yàlla gonta ba bu àndut rek moom buy dem bu numu ta bu sooba yàlla gonta ba bu dee moom numu ta fii lay ndam di ñëw incha allah bu sooba yàlla gonta ba waaw ndam ndam rek lañ soxla incha allah. waaw mais yaay Fall yi dañoo ñëw ci combat. ah ba ñëw si combat fi muy lañ dëkk nag amuñu kenn ku dul la dageer il faut ñu jàppale ko waaw te ndam dong lañ soxla nag incha allah bu soobee yàlla gonta ba na bëre bëre bu rafet waaw la dageer moom wax dëgg yàlla ñu ne moom depuis si Vatican Fass ba tey waaw depuis si Vatican Fass ba tey day jaay taay dana ko tëggoo te boobu tubaarikàll macha allah yàlla ko yàlla defal ca te yàlla may ko ndam incha allah bu soobee yàlla. fekkee li ma def moom mooy toog ñëpp ngeen xool moom ngir mu dem ñëpp a ñëw teew yàgg commencé nañu séddale añ di def ay débat bi njëkk yi géej waaye nga ni mobilisé wu ci ginnaaw doomam di ko ñaanal ndox waaye nag ci kanam tuuti daañu xam ban heure lay def moom la gis nan lay defal rek am na moom mooy booy affaire yaa ngi yaa ci c'est les gâteaux de la banlieue. Lac de Guiers numéro 2. le poulet de Mohamed Ali. ñu koy jaale Mama Ba. yaa ci gis gars yaa ngi nii xoolal sëñ bi ñu defaree kenn bëggul des ginnaaw. defal ma nii kenn ku ne yaa ngi taxaw ci lan bëgg gagné li nga xam ne moom mooy combat bi ndax benn nit ndax doomu Alioune Seye men dégg nga ñoo koy jaale boppam le tombeur de Manga 2 incha allah waaw mais yaay Fall yi dañuy ñëw ci combat. waaw ah, ba ñëw si combat fi mu ne a nag amuñu kenn ku a la tëjee il faut ñu jàppale ko waaw te lay soxla incha bu soobee yàlla koo tëba na bëri da ngeen ba tey waaw depuis si Vatican Fass ba tey Ndeye Ndiaye daal dana ko dëgg te boobu barikaal macha allah yàlla ko yàlla defal yàlla may ko def incha allah. waaw mais mbokki Leewtoo ñu ngi ak ceer bu amee ci heure bi Balla gi ñëw ci waajal Lac de Guiers numéro bi. waaw salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa ñu leen sant baax a baax parce que ñu ñaan bi yokk a baax tey moom combat bi du combat Lac de Guiers bi non non la combat capital combat bi combat capital dëgg rek neexee yàlla demee nii kon tey demee nii rek am na nu muy demee fii bi jël kàttan incha allah. xale bi da lamit moo rëy lamit moo rëy dañ ko bëgg tëj wax wax mu noppi parce maam Thierno li ma yaakaar daa war a noppi. amee bu ci biir ci kàttanu yàlla 8h 19h ngeen ci xam dara tey incha waaw. waaw mais day xeex wala muy def. bu laajee raam raam jàpp raam raam kàttanu yàlla la lum. mu laaj ñu ko bu laajee doomu daanu ñu dorobu daanu bu laajee plaque ñu plaque lu mu laaj rek dañ ko def foofu nag ñu egg ba xool ba xam lan la mu laaj mais pour l'instant daal nii moralement physiquement mystiquement lépp RAS ñaan yàlla ngoon ñu am ndam ci at bi ko sama mbër daal mooy bëri tey waaw xanaa supporter rek dem stade rek foofa wàcc ñu am ndam lu leer naa ñi ñu ñëw waaw maay géwélu soosa bi maa ngi nii. tey doo ma foon déggu leen ma de déggu ma de koy kura kura mbisan yaa jongo ma kura kura mbisan yaa ma tee nelaw menala menala menala mere menala biiri wacca sama ngege na tey doo laal yéen a ngi dégg nel booy jàng kuram bi saan lay dajal mooy Lac de Guiers Lac du mbër bu ñuy daaneel ba toog ci kawam ñun na dañu yàgg daaneel mbër séeréer mbër euh, euh, waa fii mbër olof Casa Sey lu ñu liggéey fii ci Ndakaaru kenn liggéeyu ko mooy ci footballeur yi mooy ci bëre ñun suñu bëre day leer te kuñ ci daaneel day leer dañu dañ koy daaneel ba toog ci kawam avant combat yaa ngi dem école ba. combat bi jot na ba bi jot na ba noppi. lat li ñu waxoon ak moom lépp def nañ ko te yàlla na ko defal ndam man maay géwalam man maay pam ñing lépp mu teg ko suñu loxo. yaa koy tëggal. maa koy rayal di ko jëndali ndawal di ko defal lépp doon géwalu quartier bi. mais lat moom bu soobee yàlla làmb ji yàlla nañu yàlla jàppale ba ñu egg stade di nga xam ne lépp dëgg la. non man duma ma du ma man boucher laa man jëwalam laa maa koy jaay ndawal di ko jëndali baga lépp bakki seexul xadim yéen waa Leewtoo nag mënuñu leen a fay yal na leen yàlla defal jàmm parce que yéen defar ngeen fi nekkee mais dama la bëgg a waxal tey ngay gis loo ma a gis stade bakki seexul xadim dinañ ko duma sotti ndox ma waaw ndox mi ndox mi day tey dafa wax ñoo ngi koy sotti ñoo ngi koy sotti ñoo ma koy sotti géejawaay doy na waar géejawaay li fi am tey ma sàmm géejawaay ñëpp ñu ngi ñëw jàppale ñu ñëpp xoolal autorité yëpp jàppale nañ ñu ministre yëpp jàppale nañ ñu mbëru géejawaay yëpp jàppale nañ ñu mënuñoo fay nag géejawaay kenn bu ñu limee dañuy juum yàlla nañu yàlla jàppale ak pare nañ ñoom tout bu soobee yàlla yàlla nañ defal ndaw maar waaju combat métti xoolal tëj nañ buntu tëj nañ buntu ba ko delloowaat. <laughs> ey géejawaay ey géejawaay xale bi ndax da leen yëngal wala lu xew en tout cas ils sont décidés ils sont décidés attention xoolal mag ñaa ngay woote téléphone bàyyi wuñu dara mbokki Leewtoo laa ilaaha illallaah yàgg maar lamb woneeti na boppam dama fi dajeeg doomi alin say mi baayam daan manga de ñëpp tuddee ko roi des arènes mu taxaw ne manga daanoo doo suma roi yal ko yàlla yërëm Alioune say suñu papa jooju ndeysaan xale baa ngi noonu yegg si xale bi yegg si na oto baa ngi noonu taxawul ak da gerang ci biir Lac de Guiers ngi ci biir yàgg maar xoolal ma gaay yi nee nañu ne tek te xam ne lenn la ñu bëgg muy ndam li waa Guédiawaye ngoog eh xale bi face à Boy Niang bu Pikine xoolal ma ñu ngay organiser ñu ngay jàppoo def cordon pour mu wàcc ñu nga def cordon waaw <laughs> def cordon pour mu wàcc ñu ngi koy defar xoolal organisation ba ay waay Guédiawaye a ngi mobilisé wu ci ginnaaw xalam ndeysaan ceer bu balla Guédiawaye a ngi jib bu bleu la nekk jib bu bleu rouge bleu vitre teintée ndeysaan xale yaa ngi noonu di organiser yoon la yoon la yoon la loolu yoon la xale bi génn na xale bi génn na mu ngi noonu sol jàllaabe bu ñuul jàllaabe bi dafa am ay yu ñuul ak ay trait yu doore xool nanu laka ngoog eh le regard du lion le gâteau de la banlieue laa ilaha illallah moo boobu maa xool xool bum ñu may doy na war dafa mel ni forme am na nag. il est serré indi ale na forme. il est en forme. waaw xoolal mu nga dal tey toujours égal à lui-même. sumi na mbaxana ba. laka ngoog xool na supporteram ye gars yi yooku. Eh, muñ na. eh xale bi Lac de Guiers dugg na ca biir. dal dal dal dal wër laaxi. jeex na combat bi jeex na. barki Serigne Touba boo dañu koy tër barki Serigne Touba laa wax dañu koy tër barki Alxuraan Karim affaire bi géej waay boo koy tër. Lac de rabbi day ñëw fii la day ñëw mat na incha allahu rabbi am combat bi da 10 minutes dama àggal moom danaa ko dóor ko daan ko si jàpp ko daan ko jaru sax muy ñëw man maa ko fekk si jàpp ko daan ko combat bi day gaaw nu mu ñëwee nu fekk na pare nañ lépp jàpp ko daan ko ñu indiwaat ndam li fii yàlla baax na yàlla ñaan ci arwaan a soxla ndam dafa confiant non loolu garaawu dégg naa mu naan ay cini fondem la teg la dëgër nga lax la pak ba pak lay génn bii di ko soxla barewul génn leen jàpp leen ci nii rek xoolal ma oto ba xoolal ma la ca biir mbuus ya wàcc na bidon ya bari na eh kees bi la ca ne mbuus mu jaune ma eh, gaay